kilomètres cent trente et un virgule par daanaka li Ablaye Wade daan def Euh, est-ce junior junior junior gars yi dañu war a dégg ci micro bi non micro bi tàkkul taaluñu ko ci dëkk yi piste nga xam ni ci la baykat yi yëpp di jaar Je ne sens pas le volume sur ce, micro. Est-ce que tout le monde est que tout le monde m'entend ñëpp a ngi may dégg bismillahi maa ngi tàmbali euh, di nuyu euh, sénégalais yi nga xam ni fu ñu mën a nekk muy fii muy bitim réew fii ñu nekk di wax ak yéen ñu ngi ñuy teewlu bi ma jógee ci loolu maa ngi nuyu. Euh, bu ma ci jógee ci loolu maa ngi nuyu sama naataango yi nga xam ne tey ñoo ñëw teew si fi tey ngir taataan li nga xam ni moom laa bëgg a wax jëmale ko ci réew mi maa ngi am mbégte lool nag ci euh, macha allah naataango yi ni ñu ñëwee euh, am naa ci mbégte lool parce que dafay wane. Euh, même bu sax li ñu bokk li ñu seq buy métier bi dafay wane farlu gi nga xam ni sama naataango yi am nañ ko ci déglu li may wax te jëm ci réew mi conférence de presse bi nag nii la tëddee euh, dafa am lu ma bind lu ñuy woowee texte liminaire boo xam ne ci français laa ko bind dama koy liit ci français incha allah su ma noppee ma traduire ko ci wolof su ma noppee am na listu fukki média yoo xam ni bind nañ ko en tout cas junior mi ngi koy bind nii ñu poser ay questions suñu paree ma répondre ci questions yi yëpp bu questions yi pare nag ñu ñu yëkkati mbooloo mi ndax am na ay télé yoo xam ne ñoo am contrainte dem préparer seeni éléments pour journal donc loolu moo tax donc euh, mesdames et messieurs je vais cette conférence de presse par la lecture de texte liminaire très chers confrères je voulais après la parution du tome 1 de Macky Sall face à l'histoire regagner mon trou pour me plonger dans la rédaction du tome 2. Un tissu de mensonges et de falsifications, si à ma tissé, m'en a empêché. des fake news fabriqués par une redoutable machine de désinformation inquiète mes amis et proches au Sénégal et à l'étranger. Alors que Dieu merci, il ne se passe rien de tout le scénario catastrophe qui a été présenté. Je me devais donc de me soumettre au présent exercice de clarification. Mes chers confrères, il y a un mois, paraissait Macky Sall face à l'histoire, Pacha sous scanner d'un pouvoir africain. Quel boom Quelle histoire Depuis l'explosion de ce que Alun a appelé une bombe à fragmentation, je vous informe, chers confrères, que la gendarmerie nationale à placé mon domicile, ma famille et moi-même sous protection. Je n'ai rien demandé. L'État du Sénégal a pris ses responsabilités après avoir découvert des manœuvres pour s'attaquer aux miens et à moi-même. Le courager journaliste Alun Ndiaye raison. Nous vivons actuellement dans ce pays sous une dictature de la pensée. Mais moi, cher Yerim Seck, j'ai décidé de ne pas me soumettre. Un mois après sa parution, je puis vous assurer que Macky Sall, face à l'histoire, a battu tous les records de vente dans le genre de l'essai politique. Plusieurs milliers d'exemplaires ont été écoulés en dépit du sabotage commercial qui a consisté pour un kidam identifié à Paris à balancer sur le net la version PDF de l'ouvrage. Destiné à nuire, ce geste a fini par rendre service. Sénégalais sachant lire qui n'ont pu se procurer la version papier ont eu la possibilité de consommer le livre sur le net. Cela me donne d'ailleurs une pour la vulgarisation du tome 2 à paraître. Ce qui m'importe en effet, c'est moins de gagner de l'argent que d'être lu. Le tome 1 doit sans doute être l'ouvrage politique le plus lu de l'histoire de notre République grâce à l'effet multiplicateur d'Internet. Contrairement à l'analyse de mon distingué confrère Charles Faye, je n'ai pas cherché à choquer pour créer le buzz afin de pouvoir vendre et gagner des milliards. je déclare solennellement que l'argent issu de la vente du tome 1 sera versé sous l'œil des caméras à des œuvres caritatives. Autre fake news que je me, autre fake news que je me dois de relever. Ce livre n'a été commandité par personne. Je ne suis pas Au regard de l'idée que j'ai de moi-même, un individu qu'on commandite,